conseil constitutionnel loolu lañ doon xaar ci ñoom parce que ñoom ay juge la ñoo tax ay juge la te dañoo taxaw waat te nit ki soo taxawee waat da ngaa war a respecté li nga xam ne moo nga waat parce que xam na ne Macky Sall li mu bëgg a def nii dafa nekk lu ñu bett parce que gëmmatuñu woon justice Sénégal on avait plus confiance même à, euh, au conseil constitutionnel parce que am na yu bëri yoo xam ne dafa jot a jàll. on attendait vraiment que ñu jëlal seen bopp seen décision ñu xam ne ni ils sont là pour les Sénégalais c'est pas pour une personne. conseil constitutionnel loo xamante ne c'est déjà établi loo xam ne ay chartes yu ñu fi teg la bu jotee rek dañoo war a appliquer quoi man loolu laa gis. à 2012 réew mi waxuma la tàkk mais da doon saxaar te teewul def nañ élection def nañ élection si jàmm ak salaam kon donc bu fekkee 25 février la ñu waxoon que mooy élection yi dañoo war a xool noonu loolu xool constitution bi lu mu wax. ñu appliqué loolu noonu mais amul que kii mooy dogal ak kii parce que réew réew bu ñu nekk réew bu ñu établi réewu charte la quoi si yoon lay dox. mais dëgg la élection mënu am le 25 février parce que presque 10 jours moo des ci kii quoi diggante mënuñu fay campagne te gars am nañ dañoo am opportunité pour campagne loolu moom ànd naa si ñoom mais dañoo war a def fii ak le 4 balaa le 4 avril au minimum Macky Sall joxe léegi yi. puis le conseil na mënuñ ne dañoo am rapport élection sans ñu wax ñu date. Parce que le 3 février, Macky Sall ne sera pas président au Sénégal. Il faut que les gens l'acceptent et le disent. nañ ñu wax date nit ñi préparé wu ñu dem ci suñuy campagne si jàmm ñu def élection ñu xool koo xam ne moom la yàlla jox réew mi mu changé waat indiwaat Sénégal boo xam ne réconciliation la.